waaw jàpp na am de bu nañ saraxe glace yi rek yàlla mën na yi moom bu ñëwee incha allah jàmm na glace yi waaw kon bokk askan wi yéen ñëpp ko déggandoo tey jii nii fii ngeen xam ne mooy si suñu yaabooy mën nañ koo wax ne san échec lépp lu mu mënti wax lu nekk gars yi daa nañ ko teg bët dañ koy gis tey mu ngi digtal askanu Sénégal. di leen wax ne kër gu si nekk. su mënee saraxe benn glace. fax si soxlaam ñaan réew mi si jàmm mën na ëpp loolu. si loo am rek. Hmm. nga sarax ko ci lu rafet. ñaan jàmm ci biir réew mi. ndax yàlla muccal ñu si jàmm ndax ñu jëm ci élection yoo xam ne maanaam lëndëm na. te la feeñoon 2019 mën na see feeñ. Hmm. ndax politique instant yi jaral na kenn ku nekk. waaye tey bu doon wax tey politicien bi nga gis ne base jamono ji ñëpp moom lañuy ñuy xool xool xool kan la. waaw tey askanu Sénégal nga xam ne kii moom 100 pour cent kii mën naa yor réew mi mën na koo jël. Mm-hmm. à part Macky kan nga gis ci ginnaaw koo xam ne tey jii. Mm. bu fi Macky jugee mën na fekk. kon ñi fi nekk nii tey jii nii yëpp. mën nañoo wax ne bokk. bokkul gul yow ci li la sa rawaan wan ñu nekk ci réew mi. déedéet waaye kii toog ci réew mi. ki toog ci réew mi la ma woon gisaguma keneen. ki toog ci réew mi moom kese la ma woon. mooy Macky Sall waaw. mais ku koy remplacer moom wan a golaw. déedéet jigéen daal mu ci ci wetam. jigéen mu ngi ci wetam. waaw.